Je suis Khalifa Traoré président de l'UFRSS et en même temps président de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Bader Tiam de Thiès. Nous tey dañoo ñëwoon euh, dajaloo ñun ñëpp intersyndical bi muy personnel enseignant recherche partie personnel administratif technique et de service ñu les étudiants yi sommes pour euh, jéem gantu li nga xam ne moo livraison provisoire bi nga xam état bi mom la bëggone def par rapport ak chantier Iba Der Thiam de Thiès yi nga xam mom moom lañ nekkoon di réclamer dans sa totalité depuis des années. loolu lañ xey tay à 9h ñu dajalo fi ñetti entité yooyu mo tuddu yëpp pour protester wax leen que ne ñun duñu accepter ñuy defal livraison provisoire que livraison totale lañ bëgg pour chantier yi bu ko défé ñun li nga xam ne ne lañ soxla pour suñu jang mëna accessible mëna a am utilité bi ñu am parce que dañoo baaxoo ko université bu Thiès ñoom heure bu ñu livraison partielle wala bu provisoire à chaque fois mooy nekk livraison euh, définitive. parce que bëri ay infrastructures yoo xam ne ne noonu lañ de manière provisoire mais par la suite une continuité de travaux te xam nañ ne yii nii buñ ko defee dinañ arrêté. état bi ñëw wone ñaar ñetti image que voilà instant yi joxe nañ université bi chantier yi nangam nangam fekk na ne lépp yembagul. waa je pense que ren slogan boobu noonu la université bi tenire muy intersyndical bi per pats yi ak étudiants yëpp lu ñuy wax mooy naan tout ou dañoo bëgg ñu jox ñu suñu chantier yëpp parce que li war a tabax chantier yi nekkul lu bëri. budgétisation bi nekul lo xamné né dafa nekk lu colossal gis nañ ñu jël yenen infrastructure yu gëna cher tabax ko ci durée yu gëna gatt alors que suñu université bi buñ ci defone responsabilité bi bi bi muy laccé paré won na bu yagg lolo tax tay ñu gis né affaire yi dégénéré na parce que lu ñu yëkëti woon mooy empêcher leen ñu bañ a def livraison provisoire bi mais par la suite ay contentieux am na ak force de l'ordre yi ba mu jur fi ay affrontement xëy na loolu moo nekk euh, li xewoon tey université Iba Der Thiam de Thiès. waaw message bi ñuy lancé mooy bi ñu doon lancé à chaque fois mooy wax autorité yi nañu jël seen responsabilité état bi ñoo taxaw yeggali li nga xam ne moo fi des parce que étudiants yi wax fa dëgg neex yàlla li ñuy def nii neexu leen tey neexul waa réew bi ku sañoon tey da ngay ñëw jàng pare ñibbi waaye bu ñu demee ba yegg fii c'est parce que dañoo sës parce que université bi daaw rek ay 5000 étudiants woon te dañoo sonnoon sësoon ba naroon def ay année blanche parce que bi métti woon na ren ñu ngi tourné ba ay autour de 8000 kon duma leen wax situation bi nan la war a demee war ngeen ko mën a deviner seen bopp. kon nag si situation bu métti boobu moo tax étudiants yi tey ñu yegg ba si point bii nga xam ne moom lañ yegg kon lu ñuy waxaat mooy. responsabilité étatique responsabilité autorité compétente ministre de tutelle ñoom ñëpp et engagé nañuy jël seeni responsabilité ñu tabax li nga xam ne ne moom moo des dans les plus brefs le comme ça ñu mën a ñu mën a ñu mën a jàll si leneen incha allah.